xaaj bu njëkk bi ci ñetti xaaj yi filip waare na xebaar bu baax bi te dinañu waxtaan ci la xewoon ba ñu fitnaalee taalibe yeesu yi gis nañu ci nettali bi weesu ne sool tàmbali woon na dem ci kër yi ngir jàpp taalibe yeesu yi ñi mu jàpp mu tëj leen kaso ñi ëpp ci taalibe yi daw bi ñu leen fitnaalee ñu tasaaroo ci diggante diwaanu yude ak samari fépp fu taalibe yeesu yi dem ñuy yëgle xabaar bu baax bi filip jàngal na xabaar bu baax bi waa samari waa samari ay yawut lañu woon waaye dañu raxoon ndaxte dañu doon sëy ak yeneen xet moo tax doonte waa samari yàlla lañu doon jaamu yawut yi nawuñu leen woon filip def na ay kéemaan yu bare ci doole xel mu sel mi faj na ay nit dàq na ay rab nit ñi di déglu filip te bég ci li xew nit ñu bare gëm yeesu noonu ñu sóob leen ci ndox ci jamono jooju waa samari ñu ngi toppoon ab xërëmkat bu ñu doon wax simon doole xërëmam dafa leen yéemoon waaye simon moomu sax mujj na gëm yéesu doon taalibeem ñu sóob ko ci ndox mu tàmbali topp filip simon daldi yéemu ci kéemaan yi filip def ak firnde yi mu wone léegi ma laaj leen benn lan la taalibe yeesu yee def gannaaw ba ñu dawee yerusalem dañu tasaaroo ci yeneeni bërëb bërëb bu ci nekk ñu wax fa ci mbirum yéesu Kirist ñaar lan moo xew Samari Philippe yëgle na fa xabaar bu baax bi ba ñu bari mucc ñett kan moo doonoon Simon fan la jële woon mayam xërëmkat la woon xam mu ngi jóge woon ci seytaane